bu ma def lu laaj ko la ma waroon teewaay si concert u koralu Sainte Marie Madeleine de Mbao maman nuyu naa waaw maman tey VIP nga laal de. waaw gis nga ko de di ñëw jàppale xale yi rek ak jàppale sama parwaas comme fii la ñu dëkk fii la ñu am kër ñëw jàppale suñu église ñu mun a defar suñu église suñu doom yi nekk si chorale bi tamit looloo tax ñu ñëw jàppale leen mais def nañ lu baax nag tey repas yeeg yëpp baax na macha allah. mais tu as ambiance ambiance concert concert bi neex. jaar na yoon moom jaar parce que dama ko foggé won ak ni ça fait deux jaar na yoon installation beeg yep, jaar na donc on peut dire le concert a été bien organisé. très bien très bien même très bien même waouh. très bien mais VIP neex na de. torop sax torop torop torop sax. da am concert am plat am. am am dîner am dessert am lépp ak amuse-gueule yëpp. Ah, xam nga loolu moom macha allah.

je peux dire de grand bao, duñu def ne pose pas une question ça se passe toujours comme ça sur Bendé Production vous êtes dans l'émission scène spéciale samedi Dans des VIP dans l'attente des VIP bien sûr dans l'attente des VIP Nous posons gars des VIP comment nous ñu faire fête Nous nu ñu concert parce que concert nous moom neex trop ah je suis un j'ai un ami je viens juste de voir avec son accoutrement et ça on peut dire c'est le Nigeria sur place. Bah ouais on peut dire ouais. from Nigeria sur place. Bah ouais, évidemment. Amen. mais copain nam naa la. maa lu bari gars. mais Jean-Louis lu waroon sa teewaay si concert à amicale wala chorale Sainte Marie Madeleine de Mbao. en anniversaire chorale bi la. anniversaire chorale bi la anniversaire chorale bi mais vu que ñu ngi fi yàgg nañ ci chorale bi aussi. waaw ah. fala ñu def suñu teewaay xam nga ñun ñii membre chorale bi xam nga rek mooy loolu. waaw ah. ah, faaw ñu neexal ko ba mu neex daal. def simple nag lu simple xam nga mais mais yow da nga yëg si seen ba pare. yàgg na yàgg na instant première partie bi wàcc nañ après dañuy dem changer soo ko nagaat affaire yi. VIP nga laal. waaw tamit boo ànd ak maram ak yooyu faa nga def VIP. mais comment en tant que yow chanteur en tant qu'organisateur, comment tu as noo ce concert bon à première vue nice en hein, nickel on apprécie bien ah pour l'instant sant yàlla bu baax sant yàlla bu